loolu du ay marabu rek ci thème yëpp ah suñu émission suñu émission yi lépp lépp risque la mais su fekkee yaa ngi sax ci li ngay def mu doon dëgg rek day incha allah yàlla dina la dina la jàppale ñun duñu ay ragal duñu ay ragal euh, loo am amam fit fit tamit tamit del def dëgg soo dee def dëgg rek yaakaar naa ni doo ragal dara man awuma dara lu may ragal ci li may liggéey duma ci tooñ kenn dama ci fas yéene jaamu yàlla au contraire visé wuñu nit benn marabu benn buxaaba visé wuñu benn buxaaba bu visé wuñu kenn dañ fay nekk pour alerter population bi alerte population yëgal leen ni lii mi ngi fi moytu leen moytu leen lii mais Sénégal nag fa doon dëkk bu difficile bu metti boo xam ni soo dee wax dëgg noonu nit noonu ñu bari ngay doon mais ak lu mënti xewet nekkal ci dëgg rek su Sénégal gépp bañoon ba mu des yow cundum te nga ne ci dëgg nekkal ci dëgg kooku rek sooy dee nga dee ci dëgg sooy dund nga dund ci dëgg voilà man ci dëgg googu laa taxaw bàyyi wun nit ñi nekk ci internet bi ñii de la saaga ñii naan la lii patati patata topp towuma leen sax maa ci li ma nekk rek man voilà dafa am ñoo xam ne nag dañoo am jot nit ñi dañuy fen rek nit ñi ñi ci bari li ñu wax amul c'est pas vrai loolu ku ko wax waxoo dëgg loolu musul am amul benn marabu bu ñu musa woo menace ñu wala wala ñu dem fa naan dañuy baal àq man nag baal àq pour lan nit ñi dañuy toog fa ñuy toog di créer monter seeni affaire lu ne la ñuy wax lu ne la ñuy waxal ma mi lu ne lañ may waxal man mii ndeyam si yàlla sa lu ne lañ ko doon waxal te gis nga bi mu génnee àdduna tey ji ku nekk di wax Sénégal mooy dëkk rumeur mais su lay waxal yow bàyyi leen fa la ñuy wax te nga nekk ci li nga ne dégg nga doxalal jéemal liggéey seen seen liggéey normalement bàyyi leen ñu nekk ci grand place yi di wax nekk ci bureau yi wax nekk ci internet bi di wax te nga dem liggéey sa liggéey parce que dañuy téye benn histoire monté ko ba mu ñu korij ba su la ko nettalee da nga naan lii dëgg la fekk ka ñuy waxal yëgul lu tax yëgul lu xew mais loolu nag pour man am jot la dañoo dañoo dañoo dañoo am jot man am naa beneen jot bu dul toppatoo yooyu dem naan ay da ngay groupoo di baalu pour lan gaa baalu ak pour lan loolu ko ko wax waxoo dëgg bu xaaba bu ko wax waxoo dëgg loolu amul. kooku xamuma ko sax comme ni ngeen gisee ay nit di ma xaar ci bunt bi c'était la euh, bon c'est la même chose ah jóge na seen dëkk romb piir ne ah Ndoye baankat kat fii la dëkk xaar ma jàdd fi xool ndax mi ngi fi mu jàdd dafa guddee sam papa ni ko fanaanal mun ko doom ji ma boot Ndoye baan lañ ko tuddee. moom laa doon seet sama papa ni ko nekk fi ginnaaw 22 heures jot na tey da nga yor xale boo xam ne ma deux mois am fanaanal fii bu suba ci la fanaan xëy suba sang xale bi ndekki ñu jox ko paas mu ni maa ngi dem mu dem ci garage bi jël oto jëm si Dakar ni ci man la jëm si ci ay waxam bi mu demee ba boo boori Pout foofu la accidente yàlla jël bakkanam mais xale bi ci boppam dara jotu ko bi affaire bi demee hôpital waa ñi yore social bi ñu ngi téye xale bi. ndaw si mi ngi ci morgue ba ba léegi nii may wax ak yéen ñi ngi wër ay parents parce que amul benn papier bu ko mën a identifier ci li mu wax Pire li mu wax sama papa dong lañ mën a jàpp ni Richard tool xam ma daal lu jógee côté yooyu côté dëkk yooyu gars yi def nañ ay recherche foofu dem nañ ci jumaa ji dem nañ ci gendarmerie bi annoncé nañ ko ci rajo yi yeeg yooyu yëpp mais ba léegi nii may wax ak yow tey jii ngeen ñëw nii ba léegi corps bi mi ngi ci euh, hôpital régional xale bi tamit mu ngi ci service social yi foofu ñu ngi toog di xaar fi mu nii affaire yi dafay dem yéeg ci kaw procureur moo mën a joxe ndogal pour ñu denc ko procureur moo mën a joxe xale boobu mu wax ni man lañ ko tuddee amaguñ ci nag ay information yu wóor que ni. Euh, ndaw si xale bi man lañ ko tuddee mais la ndaw sa wax sam papa ca pir loolu lañ mën a jàppagum ba léegi ba soo demee Thiès fa xale ba nekk xale bi ndooy baan lañ ko yooyu ba léegi nii bon dañuy ñaan rek yàlla na yàlla def li gën li ci gën daal en tout cas incha allah dinañ ko def. loolu mënaguñ cee egg mënaguñ cee egg parce que mbir moo gis étape par étape la fi mu ñoo ñoo ngi nekk ci étape bu identifier yaay ji d'abord suñu identifier yaay ji ba xam ni yaay ji fii la dëkk. ci la ñuy pousse enquête bi dinañ xam su boobaa dinañ xam jëkkëram dinañ xam papaam dinañ xam yaayam dinañ xam ba xam ndaw si li mu doon wax noonu lu am la wala amul su fekkee nag identifié wuñu ndaw si donc procureur ci boppam moo mën a jël décision parce que moo mën a jël décision bi ni xale bi diw lañ koy jox wala fele lañ koy yóbbu suñu eggee nag ci ci ci ci ci ci étape boobu noonu dinañ am beneen taxawaay bu ci am su fekkee procureur accepté nañu jox ñu ko kooku amul benn problème parce que man damaa judd ci famille boo xam ni damaa judd fekk sam papa <laughs> yar ay xale yu góor ak xale yu jigéen yu baree baree bare juru leen donc man taxawaay boobu sam papa yor am ba léegi noonu laa taxawee am na ci ñoo xam ne ay doomi jàmbur yoo xam ni mën naa ni man maa leen yore ay samay trondo et tout donc <laughs> li naan doom ja ndey ja wala bàyyi ba doom ja loolu moom fekk man moom su fekkee yaa yor nit moom mën naa ko mais yegg guñu foofu suñ fa yeggee rek